wallaay ndeysaan euh, pour wax la ni tubaab yi lu leen neex def wallaay ndeysaan buur lañu ñoom daal buur piir lañu ba tax na rekk bàyyi ci xel rek sa def ummatan wasatan moom daal moo gën moo gën de ummatan wasatan daal moo gën tabarkalla tabarkalla seet nuñ koy defe duñ ko nangu nag duñ ko nangu gis nga dama feebar Euh, ndax dama demoon tournée tournée yoo xam ne ni muy metti ma dem tournée bari ñëw dugg fii ci biir Tiwaawan nag quatre heures jotagul sax ñu commencé nodd fajar euh, ak fukki haut waaw ma ni lii man bu ma ci fanaane yàlla ma jig di ma daldi woon woo bi mu ñëw ma ni ko man loo bàyyi Euh, aw parleur yi mu ni ma déedéet ndax bu nu ko deful mu xumb ñële dañuy xumbale waaw ba di wax lii moom ndax diine la bokk laay lii kenn mësu ko gis ma ne kon maa ngi bëgg a toskare loolu kenn xamul lan la bu nu ko deful rek xumbal nii ñële dañuy xumbal kon nag bàyyi ma rek ma xumbal ma itam ma ne lii de kenn su ko gis wallaay ndeysaan waaye daal moom euh, loolu kenn xamul lan la sëñ Babacar Si mii daf ñu daan topp wattu leen euh, kii bii na mu tudd ataaye waaw lu ne guddi gi dañuy naan ataaye mu ni wattu leen ataaye bàyyi leen ko euh, mën ngeen jël sax café moom moom café daal moom man ngeen ci am ndigal waaye ataaya moom dafa tàng ndax seen maam Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu daf daan wax ni des na tuuti kenn sa yaram dootul sedd ndax tàngaayu suukar ak tàngaayu dëlwin ak tàngaayu ceeb ak tàngaayu jant moo ko wax de nee ñeenti tàngaay yii xajul ci yaram Seydi El Hadj Malick ma ko wax tàngaayu suukar tàngaayu dëlwit tàngaayu ceeb ak tàngaayu jant nga boole leen ñoom ñeent ah kooku dafay tàng bu mu ëpp ndeysaan bu ko defee euh, ba mu jëkkee wax rekk bàyyi leen bàyyi leen ataaya bi euh, euh, ba mujj mu ni kafe baax na waaw café moom baax na ndax kat moom xam nga lu tax mu wax loolu café rek la bëggoon waaw yàlla dogal bu ci nekk nag waaw ma ma ma defal ko ci ay bayt nag ndeysaan di ko wax ata ataaya ataaya buxil xalila ataaya ataaya buxil xalila وما له خليل سوى أهل الفضائل والفخر من ياها أنا بمو أنسيسي بمو باينك ما ما ما ما تقل كو كافي وبنك لك سوى كونتان من كو قهوة البني لا تعاب لدي ولا ليس كنت من قول عائبها بريا من ما هو كي بابا بخ Ah, ndeysaan wallaay ndeysaan eh, booba yooyu rek lanuy foye du nu foye leneen wallaay ndeysaan lu mu guddi guddi nga dégg mu fëgg bàyyi leen ataay ataay ji dafa tàng dafa tàng dafa tàng ataay ji dafa tàng waaye moom da ngay jaaxle parce que boo demee itam ci désert bi dañ la naan ataaya baax na ci tàngaay xaw na doy waar eh, lu mu wax lu mu wax moom Maodo mu safaanoo ak li scientifique yi wax bul gaawantu lu scientifique yi wax mu bañ a dëppoog lu Maodo wax bul gaawantu waaw doxi ba gis leen ñoom ñaar lañu doon wax dëppoo loolu kenn xamul lan la loolu kenn xamul lan la ndax dafa daan wax ñaari yëf nee na ki toll ci njàng moo xam ci université ba la walla fan la nee na nelaw yu bare dafay tàyyiloo yóoram Nah, te scientifique yi ni kuy jàng war nga nelaw ba doyal ndax mooy dimbali sa cerveau ma ne man de jaaxle na parce que mënuma weddi bii te mënuma bi may dem di dem te gis nga moom nag kàddoom dafay mel ni dafa sax ci man mënuma ca dara moom daal lu mu wax rek man d'accord na entièrement ba ma gis ca weer wala passé ñoom scientifique yi daje bu ñu daje wax ni euh, dormir peu et dormir mieux xanaa léegi ñoom d'accord nañu euh, nit mën na nelaw fukki waxtu te du ko jëriñ eh, dafay jàllar bi ko rek boo amee soxla piir walla nga am yitte piir jàllar bi ko rek waaye nelaw moom doo ko def waaye nelaw ñeenti waxtu sax mu nekk bu piir ba njëriñ la moo gën fukki waxtu yoo xam ne dangay jàllar bi di nelaw te doo nelaw doo xam lii la moom daal te yooyu soxlaa koy indi soxla piir mooy indi loolu oh, mu mel ni rekk tabarkalla yàlla may na ko yu bare bare bare bu ko waxee rek noonu lay deme mu ni nag ñuy jàng nii nañuy toppatoo suba eh, seen seen soccu waaw nañuy toppatoo suba seen soccu te bu ñu soccoo ba bët ci seen soccu ba galax di ko ba noppi bu fekkee lu mel ni rummaan jege na leen nañu koy màtt nii di ko muucu waaw rummaan mooy grenade yi dafay am doom mi ngi koy digle moom Maodo ni nañu koy muucu noonu waaye ku amul rummaan boo amee euh, tufaax euh, palaasam baax na euh, tufaax ci wolof du mooy pom yi waaw pom baax na ijaas dafa bare dafa am tuuti gaz ijaas dafa am tuuti gaz euh, mës mës bi dafa am tuuti gaz euh, wax nañ ni euh, am na tuuti gaz daal xam naa bañ ci di xër noonu euh, mooy xaw a ndax gaz ci estomac it dafa wóorul wóorul de euh, la euh, sama mbokku tukulóor ba waxoon jarbaatam ba ndax xam nga soowit baax na ci nit de nee ñu moo jiitu ci biiram waaye am na gaz nag ma wax leen ko yooyu yëpp yi am gaz dafay mat a wattu ndax way jékki-jékki rek doo xam fu muy jaar tabarkalla tabarkalla yooyu yëpp ngi ci am mbokk tukulóor ba ah, dafa dem yaru tugal rek ba mu amee ñaari at la dem déggatul dara ci tukulóor déggatul dara ci wolof déggatul dara ci dara jarbaat bi nag ñu ngi fii di jàng mu jóge mu jóge tugal rek ñëw ak ndeysaan kenn xamul euh, tubaab ni ñuy def nit dañ lay jox seen aada yëpp yëpp yëpp te boobu baaxul de boobu daal moom ëpp naa def sax yàllaata gaz bi moo amee woon génn te jarbaat bi nag xamul loolu parce que fii daal catastrophe la fi waaw xanaa tugal kay la baaxe waaye fii fii moom baaxewu baaxul mukk jarbaat bi ah, amul pexe mu yuuxu waaw ah, yuuxu ca kaw mu ne ko looy yuuxu mu wax mu làkk ko ci tubaab ni ko mais pour pourquoi tu cries comme ça déggul euh, kii euh, mu ne ko mais parce que tu as pété Je est-ce que je l'ai fait contre toi mon dis, mais non, contre l'islam, tu dois te purifier. Mais ça. ni tu dois te purifier rekk nijaay ji yuuxu moom itam foogul ni yëf yi mu ni ko ci citaat mon sax le ni ko lu ni ma ngay yonent yonent bi réveille-toi ah, parce que les marabouts sont devenus fous Manuka, lolo fait ah looloo fi xew ma ni ko bi euh, tu dois renouveler tes ablutions et puis c'est tout loolu rekk la waxin dana yàq waaye tu dois te purifier euh, euh, te moom deful dara ah. Mata waroon que tu dois renouveler ndeysaan tes ablutions Avec rituel Tu bu ko defee du metti ci moom du metti mukk mukk ci moom waaye daal aada à aada baaxul beaucoup, beaucoup, beaucoup mukk mukk Tu ah, eh, tas na des yu bare gaz yi moo tu di lekk amul gaz par de pom gaz soow nag neex na mais am na gaz ma wax la ko léegi yi ci desit yi ci desit yooyoo ngi ci ndeysaan ni jaaman bay nee na eh, eh, ni jaaman bay jaxu nee na waaja dafay dox ci àll bi nee benn caraxam dagg ne ne mu sëgg di ko defar ndeke dafa naanoon soow wallaay ndeysaan yëgu ko dafa mujj di sant boroomam nit lii moo fekkoon ci biir dëkk ba rek ndeysaan moo fekkoon ci dëkk ba rek àdduna tukki wallaay ndeysaan ne rek nag di sant yàlla bu baax bu baax di ko sant naka lay dugg ci kër gi rekk eh, ci biir dëkk bi dégg xale bu walis ci gannaawam mu ni ko foo ma dabe astaghfirullah alazim mu ni ko fi nga doon defare sa dàll ndeysaan wallaay ndeysaan góor ga saak ko ndey ah te jote ko loolu kay kenn xamul lan la mu daal di koy daggal rek saaga ndey ci taxawaay ma ni lii de kenn mës ko gis moom daal aada aada baaxul aada bu ëpp rek yàq ndeysaan Seydi El Hadji Malick daan na ko di wax daan na wax ni réew mi nee na aada moo fi daan diine ba faw mag ñi daj ci lu ne pour mu weddi ko mu bañ Seydi Ahmed Si ca ca ndar Sidi Ahmed si ca ndar nee na jaaxal na ko euh, kercen bu ñuul ñu di ko wax ñu di ko wax gurmet te nee ñun nii jullit yu ñuul yi ñoo ma yem kon nan lu tudde euh, gurmeti lislaam waaw moom daal dogu ca rek ba Maodo fekk ko ci ni ko wax nga dëgg kon nag nooy nooy gurmeti lislaam loo ci man wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan àddu ju ëpp baaxul moom daal umatan uh, wasat rek ak ak tariqal wasat moom daal boobu rek moom mooy farata bi waaye li ci des yépp dafay ëpp du baax mukk du baax mukk mukk mukk lu ne ñu yemale ko lu ne ñu yemale ko lu ne ñu yemale ko boobu moom mooy farata bi waaye bu dee lu ne ñu ëppal ko lu ne ñu ëppal ko lu ne ëppal ko boobu baaxul boobu baaxul dafay tax seen nit ñi dootuñu wér te nag doomu aadama soxla na wér li ci des kenn xamul lan la tabarkal la tabarkal yemale yëf yi daal baax na ci ummatan wasat kooku daal farata piir pire nu bàyyi ci xel moo gën a baax nag ndeysaan yooyu rekk moo xew ci àdduna bi yépp coow lu xuloo yi xuloo yi xuloo yi bala kenn mënu ko nettali eh, wax naa leen bërki dem rek laa ci xuloo eh, ku bëgg muuraay kay bàyyi ko mu muuru yàqay waaye affaire ñàkk toléré baaxul kooku baaxul mukk mukk mu mu ni